Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de yàlla xam nga sa papa Khadim Samb buy feete vraiment li mu def ci làmb donc duñ mën lu am ci mbégte di ko ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér xale yi ñoo toll noonu ñi ngi sant yàlla drapeau président ak grande dame kooku ak sant la dimanche bi di ñëw nag. Euh, mën nañ la wax ne la caatu yoof ak xale bi nga xam ne Bébé Diouldé boobu jëy production la dimanche bi ci topp Bébé Diouldé euh, jet li ak jamteer yi Mohamed Diop kii moo ko tëgg bi ci topp Tigo Boy Dakar yëpp fi lay xewe ñu sant yàlla seen liggéey rafet na la presse sénégalaise mais daal Khadim Samb gàcce gala saa da nga teel a pare rek te combat bi ñëwagul waaw xam rek noonu la loolu moo ñu war loolu moo ñu war xam nga ni ku gis keroog ak léegi xam ni am na changement waaw combat bi avant combat boobu sax par exemple su ma rak Aliou Seye waaw waaw moom moom vraiment comme li wax làmb waxul dëgg moo tax muy bëreeg kii nii mais bu làmb waxoon dëgg du sax bëreeg moom mais vraiment préparé nañ ko li des nag ñu ngi tàllal loxo di ko ñaanal pour yàlla may ko ndam. ngeen di bëreeg koo xamante ne dafa nekk ci yoon mu ñax ah, mu mu jóge ci victoire ah, mu nekk ci yoon am ngëm-ngëm ne doo leen ko mais ñax xam nga rek xam nga mbër day yaru fii la ñëw saaga ñu mën ak la de guerre mbër mu ndaw day yaru la dëgg xam nga combat dëgg la xam nga làmb la xam lu war lépp ñun nañ ko def mais tamit na am na am respect ci nit daal ñax xam nga moom dafa des am respect ci nit. mais loolu boo leen ko bë bu ko seen euh, waay bëriwaale est-ce que du yàq combat non mais xam nga rek man ak la dëgër la saaga mais Aliou Seyde moom xam na xam na xam nañu xam nañ ko bu baax a baax waaw làmb jaaxalu ko événement bu ne bëri na ko moo tax ñu ngi koy ñaanal daal yàlla may ko ndam. combat bi war a nekk combat am solo ci écurie Waalo rawatina Guédiawaye. waa làmb ji xam nga rek xam nga fi mu toll nii ren moom renu géejawaay la bu sooba yàlla Alioune Seye Deo ak booy beneen booy bi ama seen si junior rek booy ci am yëpp vraiment yàlla ne leen may ndam ñooy ubbi bunt yi man ma ñëw topp ci waaw ñooy ubbi porte yi jaajëf doom na qualité bëreem ñëpp xam nañ ko ci làmb ak sañ-sañam ak bëgg li muy def moom dafa mbëri yoo xamante ne bu ñu xamee ne kii danger la ci ñoom duñ ko jël moom moo tax affaire yi xaw a ci moom mais daanaanu làmb la nag quel adversaire pour Lac de Guiers numéro 2 saison 2019 2020. waaw adversaire yi bëri nañ ci nag bëri nañ mais du ma mayaat beneen booy sens parce que may naa li ñoom ñoo ci des mag ñi nekk ci kaw ñoom tam nañ may booy sens. man mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee VIP yi ñoom tam nañ may booy sens parce que ma def naa ñaari yoon sacrifice je crois bien ah kon donc jaayante naa ak sama ba génn ci mball bi léegi ñoom ñoo ci ñoom nañ maye waaw. si mball bi génn si booy ñaar numéro waaw comme def naa li nga xamante ne waruma koon def te ku wax rek ñu ne wax la la dëggeen numéro te xam nañ ne foofu du seen yoon comme yàlla def na ma téye leen nag léegi ñeneen ci des nag ñoom nañ góorgóorlu tuuti. xam naa dafa bëri Bombardier jox naa la Tapha Tine. na ñëw na ñëw. déggoo ma ne na ñëw. déggoo ma ne la Lac de Guiers nee na. nee na Tapha Tine jox nga ma Tapha Tine. waaw ma la ñëw jàmm maa ngi koy xaar. waaw moo ko traité neex waaw. mais lan moo tax lan moo tax la gannaaw bi ma la nuyoo siyaar la. <laughs> lan moo tax état physique bi yokku nii. waaw mais entraînement yi la rek ak récupération bi yëpp da cee baax xel mu dal rek. mais nag indiwoo état bi bi ngay bëreeg bi ngay bëreeg. Euh, euh, Boy Niang de. waaw contre Boy Niang il a fallu que ñu wàññi suñu poids ba wow koŋ parce que dafa nekkoon combat boo xam ne loolu la laajoon mu duré xol bu baax liggéey bu métti. résistance waaw. yaa ngi wax sànq ci euh, VIP yi est-ce que du looloo tax nga yokk poids bi pour waajal leen. waaw. ah nag ñoom dañoo xaw a dëgër bopp. mais nag da nga déterminé dama sentir ne bi nga génnee ci combat ba tey da nga da booy wax mooy loolu. waaw mais xel mu dal rek sant yàlla xam nga boo jógee ci combat mu am nu mu fa demee nga jàngat lu bari bu la wër da ngay amaat combat ne loolu ba yandoor. Gris Bordeaux ko sa combat ak moom gars yi duñ koy wax lu bari. kan courant. waaw courant. waaye courant waaye courant a ngi lay ziar. da nga jàpp ne da nga ragal. non courant moo ko jàpp ba fu ne ba léegi courant moo ko bàyyeegul wala dafa yaakaar ne parce que fan yii paase damaa waxoon damaa yor 600 volts sama loxo bi loolu moo tax daf may teggi fu ne nii. kon kon yow da nga jàpp ne da lay teggi. da lay teggi Gris Bordeaux rek ñemewu ma li ma leen wax nii yéen mënoo leen ci xam dara amateur yi mënuñ ci xam dara mais sama diggante ak moom ragal bu bon la du ragal ndànk sax. lan la la jëgeer moom métier bëreel wala. xam na ne élément bi muy dajanteel ah ko doole ëpp ko fit dàq ko xeex ëpp ko ginnaaw day dem xoole ji lu nooy te man duma lu nooy bu fekkee lu nooy lay wër na dem féete à gauche fii lu nooy amu fi ci làmb ji léegi lépp a wow comme. mais moom kenn la ciblé Balla Gaye la. c'est son problème moom moo am droit ciblé ku ko neex mais man duma mbër bu ñu sible sa revanche ak Tapha tamit gars yi ñu koy wax. maa ngi toog di xaar. déggoo ma la déggoo ma di dama naan maa ngi toog di xaar. te yow dootoo mayat booy yi chance. pare naa ci doy na nag booy nag nañ gore tuuti wala man dong nañ ma ñime am na ñeneen ñu ne ci kaw nañ jël noonu. ñeme nga ma physique. ah ñeme nga ma physique. sama diggante yow ndax am ñeme naa la physique. waaw nañ daje saal di nga xam kuy la dëgër de wala yow déggoo sama jëw. non maa ki yaw laa wax. man ne yow xanaa déggoo sama jëw damaa ja damaa ñëw géej waaye jàpp say say say say gaa bëtt leen. waaw ah. mais nag dañ koy wéccoo kiif kiif maag yow. dafa am système boo yor nga liggéeyloo ma ci <laughs> ma yor système bi ma yor ma liggéeyloo la ci d' accord nga. d' naa kon bisimilah. dinaa ñëw amul problème. <laughs> jaajëf saa ñoo for gay de. ak kii waaw waaw. lan moo tax. waaw Diaz moom mooy imaam bi mooy imaamu Guédiawaye Alioune Seye Dieng. jàmm la moom moo moom moo moo mel noonu quoi. xam nga ñu nga ñaanal suñu borom suturaal ko may ko ndam daal ci barki ndeyam ak baayam daal. parce que nit ku baax la xam nga yéen a ñëpp jàmm ku am bés da siy ñu koy ñaan suñu borom may ko ndam ndax mérito na ko comme ni ma koy waxee rek bu làmb waxoon dëgg du bëri ak ñax jëriñu mais làmb mooy defee nu ko neexee ñu koy ñaan suñu borom sutural ko quoi. nga xamante ne dafa ne mais ñoom ñoo bokk course bi rek parce que ñoom ñaar ñëpp làmb la ñuy def te ñu ngi ñaanal daal Alioune Seye 2 suñu may ko ndam lu sedd guy yàlla ne ko suñu borom suturaal daal lépp lu nekkoon wërsëgam rek suñu borom nag ko compal tuuti xam nga mosal ko mu daan ñax jër ñu seeti leneen. maa ngi dégg sa combat. waaw am na wala waaw waaw ma ma bépp bis bi. Ah, waaw taxaw na na waaw. nan nga fas yéenee ñëwee. yàlla baax na yàlla si yàlla yóbbu ak jàmm rek incha allah. sa combat bi mujj da nga da ma taxaw man maa njëkk taxaw ne état physique bi neexuma dafa tooy dafa yéex ah mais ndax bii booy ñëw danañu gis benn papa booy jinne bu wow koŋ indi détermination. waaw loolu lépp ngi dépendre si coach yi ma yor rek parce que man moom làmb su ma ko jëlee du man maa préparé sama bopp damay dénk damaa dénk ay nit sama bopp combat bu nekk ak li mu laaj combat bu nekk ak ni ma koy waajalee defet moom bu ñëwee ñëw na làmb boo daanoo gars yi duñ gis entraînement duñ gis social duñ gis laaj dañ naan daanu na rek te ñëpp dañuy ñëw wéeru ci côté entraînement bi mais làmb mooy tëddee nu ko neexee waaw lamb làmb Abdou Diouf ceeg ceeg moo dóor Abdou Diouf moo daanu dama ko duma daan ko bu moo dóor sa day yàq der are laa ko dóor cëg du loolu dara laalu ko barki Serigne Touba lam jo kër dem ka téléchargé kër ko seetaan naa sa waay da ko ba mu yàqu moo dóor moo daal lu ko raw laa koy def giri de lu ko raw laa koy def te billahi wallahi fii laa waxee barki alxuraan cëg ku moo ko daanal du sëriñ du dara gars yi ñuy wax mais moo ko daanal Eh, eh booy bi sara la eh, boo yéexee mu dóor ko mu daanu. dama koy yet nii moo tax may jéem a waaw. am na lan nga lan nga eh? xam nga booy bi rek xam nga yàlla. yàlla bu la tegee boo nekkee say morom yàlla teg la foo xam te ni koy wax dañ naan jox leen ma papa jëkkëru ndéegi am na yoo xam ne war na ko moytu. du dëgg yàlla boo dee xale nga am tur kon am na yu bare mën nga ko moytu. histoire moo amul njariñ du dëgg moom luñ ko mën a wax xam ni yàlla moo ko àggal fi bari na boo yoo xam te ni ñi ngi fi yàggu fi mais moom mi ngi dem fu mu bëgg a dem du dëgg loolu sant yàlla kon bula kenn dugal ci yenn yi xam nga amul njariñ xam nga ñun ñoo ko gënoon ëpp problème ñoo ko gënoon ñun tëdd nañ cent mètres ndax ñu jox un mois xam nga ay jëmi ak yeneen ak yeneen xam la mais dafa am loo xam te ni man fekk naa nit koy agressé génn pistolet ma daw fekk ko xam jël histoire bi kon xam nga man du ma ragal mais dafa am loo xam ne amul njariñ xam nga moom na xam ni xale la du dëgg xam nga ku ko tooñ sax na ko jégalu xam ni kat xam nga xale la am na avenir ci làmb loolu la lañ bëgg ci moom. waaw sant yàlla moom suñu mag la ñu bokk gox bi xam nga mu dëgg gunaas nekk suñu mag te moom la ñu am gunaas suñu dëkk Alioune Seye 2 Abdou Diouf parce que ñoom ñoo suñu grand ñoo jiitu si làmb ñoo jëkk a bëre def lu ne si làmb kon ñoom dañuy déglu seen i conseil di leen xel bu baax am ñu lu dul ñoom. am ma loolu ñoom parce que xam nga ñoo bokk benn koñ soo génnee kër Abdou Diouf boo rombee kër kër Alizé 2 ngay dem kon xam nga di ñaanal doomu Gounass yëpp ñi am xam nga ñi amagul combat ñëpp yàlla na suñu borom defal jàmm combat yi am caat bu waalo maca xam nga Abdou Diouf Alizé 2 mi war a bëri tey yàlla na suñu borom suturaal ñun ñëpp maa ngi ndam maaji parce que ñun xam nga 100 pour cent Gounass mooy daw suñu yaram ñun Gounass la ñu am lu ñu am lépp Gounass ñu ngi ñaanal doomu Gounass jaajëf kontaan nañ. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.